arbitre bi ngi waaj a dox ci diggante Amza ak Sokocim ndeysaan Sokocim numéro 2 moom ngeen jàkkaar lool moo ngeen moo lu weex li moo la woon ginnaaw tent tent bopp bi lu weex am lu ñuul ndeysaan Amza écurie Boy Seye la nekk Sokocim genre gëm sa bopp la nekk <laughs> ndaysaan ñoom ñaari xale yaa ngi noonu ndaysaan ñoom ñaari xale yaa ngi noonu Sococim numéro 2 ak Hamza Hamza Hamza Hamza Sococim Sococim Sococim <laughs> waaye xale yee neex waay door na cokkaas na ee eh, ni mu ñëwee baaxul ma dóor soo ko nga dóor am saa nga ñëwee baaxul jàppante nañ combat bi dina gaaw soo ko sim am ci suuf lu nar a xew soo ko sim am loxo càmmoñ bi jàpp na am saa loxo ndijoor bi jàpp na soo ko si ma nga dóor ci suuf soo ko si ma nga dóor ci biir bi soo ko sim dóoraat na Sokocim dóoraat na Sokocim mooy dóor ci biir bi mu ngi dóor loolu lañ tuddee pompé pompé pompé pompé ma ngay pompé moom Sokocim Sokocim Amza Sokocim Amza Sokocim Amza Sokocim Amza Sokocim mu ngay dóor dugal bopp Amza Sococim Amza zongale na ko mu bañ Amza Sococim Amza Sococim mercredi 23 wala déet février 2022 arène Ama Events Sococim Amza combat spécial baa ngi noonu Sococim Amza ñoom ñaare ngi noonu ndaysaan Sococim Amza <laughs> ndaysaan xale yaa ngi noonu Sococim Amza lamb jaa ngi noonu ndaysaan Sococim Amza Sococim Amza lu mu nar public na Amza ba bëgg a forcer bi Sococim bañ ndaysaan ñaari poids lourd lañ combat bi munul gaaw du yomb moytul dem na sànni na ko Sococim Amza Sococim Amza Amza Sococim daan na ko daan na ko e bul dóor waa mbëri yi leen dal ñam waa mbër yi lan la ah Amza daan na sim de waaye ñam na ko de ah bàyyi leen lii waay lii rafetul waay lii rafetul waay ah Amza daan na ko waay daan na ko ndeysaan Amza daan sim waaw waaw.